est-ce que pare ngeen pour ñu def show tey est-ce que pare ngeen damay laaj dong pare goo leen mais Elzo su ñëwee di ngeen pare Mais dès maintenant na ngeen di pare. Nous sommes les mélomanes du hip-hop sénégalais. Ce soir, nous allons vous montrer ici, aux Esplanade du Grand Théâtre, ce que les stars internationales font, lui, il le fait avec du respect, du talent, du savoir-faire et beaucoup de punch. Voici le public qui a répondu à Elzo Jamdong. Ce soir, aux Esplanade du Grand Théâtre. Est-ce que yéen a ngi hey, hey, hey. police di préparé bëgg leen nit yi ma xamul ci kaw gisuma leen yeah yeah mel amuma life amuma amour amuma amour amuma amour maa ngi studio di bind album pour nit yi ma gisul hey pour nit yi ma gisul kañ la may jallu let's go rap yeah job naa bëgg siiw léegi siiw naa bëgg làqatu musuma bëgg feeñ pour réussir am toro siiw léegi amatul jaratul may gën a yéeg yéeg ni ba testé overdose Amy Winehouse léegi jaaxalatuma ndax teyal naa est-ce que suma démissionné wul woon sama ex job duma tane fii bëggoon boole fi famille ak showbiz kenn mu dul amadoo ñaar fii ak jaamu toog bi may woote fu nekk approche bi waay maa ngi doog a ràññee ndeke succès bëri na piège bëri na artifice gañe naa ay cachet signé naa ay cachet yokk naa ay ami ñàkk naa ay xarit yàlla may may mbokk man ma tey may fans LDR rek sa ko préparé dégg la nit yu ma xamul ay nit yu ma xamul ay nit yu ma xamul xamul xamul mel ni amuma life amuma amour amuma amour c'est vrai que. amula amour hey. maa ngi si jooju bi daal donc pour nit yi ma gisul pour nit yi ma gisul kañ la may dellu ci noonu. ma gaañ dina la gaañ te dina ko yëg doo ko yëg mi ngi may xaañ hay kare bi dina ma gaañ dina la gaañ te dina ko yëg doo ko yëg mi ngi may xaañ hay Yeah, doonay kilomètre dox naay kilo er. heure jóg yoonu missionnaire pour nekk billionnaire sol naa pour le verre ak t-shirt marque yi i a cher waaye même tabaxu immortel mënul tax ba nga nekk ku immortel concert yaa ngi gën a supporter yaa ngi daanu leer gën naa sama baatu meer est-ce que lii moo meer dugg big coow dugg big coow te kenn dugg lu big boss benn du machine benn machine boobu machine sax de bëggee cousin mën nga ma mere wanu ma la ni ma la bëggee xoolal léegi damay toog trois mois du ma dégganteeg bés nam naa man ak changeur bu ñu foot. mag samay police di préparé dëgg lay nit yu ma xamul. nit yu xamul ay nit yu ma xamul. nit yu xamul ay nit yu ma xamul. xamul xamul xamul. ma ne amuma life amuma amul. amuloo amuma amul. amuloo amuma amul. maa ngi studio di bind album pour nit yu ma gisul. nit yu gisul nit yu ma gisul. kañ la may delloo. wow eh, loo loo loo. carrière bi dina ma gaañ. dina la gaañ tuuti ko. déggu ma waa côté bi carrière bi dina ma gën dina côté bi carrière bi dina ma gaañ one two one two three four never just. Yeah, yeah. Say jump, jump, jump. I say jump, jump, jump. Say jump, jump, jump. I say jump, jump, jump. I say jump, jungler. Hey, jump. I say jump, jungler. Jump now, but it's you. Jump, festival. Sama gars, tàccu leen seen bopp yéen ñoom s'il vous plaît waay. maa leen di big up yéen ñëpp di jégalu ci retard yi ñu am premier son bi nii sax du ma leen fen dafa am ay problème technique du ma leen nëbb bu leen fen mais maa ngi leen di bégee bu baax seen teewaay seen support depuis toutes ces années est-ce que pare ngeen pour ñu def le show de l'année sama gars non non non mel ne ngeen di nelaw dégguma leen ma ne est-ce que pare ngeen pour ñu def le show de l'année kan moo am vidéo de l'année sama gars ñun la wala du ñun kan moo def meilleure réalisation de l'année la wala du ñun léegi ñun mën nañ def meilleur festival de l'année wala mënuñu ko let's go hands up yeah yeah Digu Sandaga yeah daanu ma seetaan dessin animé ma gënoon tuuti gaale te benn télé mooy animé seem laaroon góolu fii da ngay teel a dem matiné lim ngay teel a def diggu Dakar risu raga bu DJ Matardi du tax nga ñàkk taalibe maman nee na gentil naa bizarrement grand yi nee nañ bandi la waa gaale doo leen woon sa fit taw gentil naa muy zone koona duma ànd ak samay sentiment bi ñu amee sept ans lañ xame lax bi ñu amee treize ans lañ dugg même boo amul mag da ngay teel a naan waxuma la nag nga doon nàpp ci bu mag root on de toni baak litre Valmeras dund naa ci génn naa ci rue de Valmiram dund naa ko càng naa ak ruxu Macky saaf dix ans après koñ bi noonu la gën a yàqu Macky salte booy tey lañ gën a dee waalo tey la gën a aay jënd ak jaay koog marché comme si Sénégal fi ni mu dëkkee bâtiment loolu la bëree bâtiment may ko bool bool yeeg merengi sama capital dem naa Chinatown dund système dëkk naa kaa wër naa Sénégal gis naa ne waa town du ñu Sénégal tout le monde capitale de la capitale woo dégguma c'est capitale de la capitale woo woo capitale de la capitale yeah hey capitale de la capitale woo watano dano musetan dese anime magonon tuuti galata bene télé mooy anime mtv laaron goolo fii da ngay teel dem matine lim ngay teel a def tam nga aligné ba abime wàcc doo wala alisé du tax nga jàkk teel a donte a gens bitch ba amul chance dëgër dëgër rek da ngay 15 li ma daan romb guddi town moo ma in indil inspi bi may njëkk bind 16 ama guma 15 piche xam nga ay Phuket Africa Star siste yi joobe rue Scarfe angle rafanel hôtel du marché Albert Salo Saloon Texas Market Town rek xam ne ponti amul caga matin bi da ngay jàng ngoon da ngay def street night bi da ngay jox poon da ngay def peace amee ko bee yu duggul góor a pour que yóbbu leen salle de vente jaay fa lastu góol nga am si lekku dil coy jàpp nañ gangsta yi daaxoon jàpp taaj boo yi doon dàq sib léegi ñoo màgg dàq dil boo amee grand yu dëkk jeel dootoo jàpp cil nga faale ci ay yërmande jégalu jàpp ci tey la gën a dee tey la gën a aay jënd ak jaay bon marché comme si Sénégal fii ni mu bëree bâtiment noonu la bëree bâtiment tout le monde loo ko ci kaw ma gis dem naa Chinatown dund système fédéral dem na la défense châtelet dëgg naa gaaw wër naa Sénégal gis naa ne waa town du ñu Sénégal hey capitale de la capitale capitale de la woo dem naa Chinatown di système fédéral dem naa la défense châtelet al ah dëgg naa gaaw wër naa Sénégal mais gis naa ne waa town du ñu seen égal tout le monde c'est capitale de la capitale woo la capitale de la capitale. Hey! It's a night in town, round after round. Boy, check the sound, c'est du underground. It's a night in town, round after round. Boy, check the sound, c'est du. Hey! It's a night in town, round after round. Hey! Boy, check the sound, c'est du under. It's, a, night in town, round after round. Comme la gantangle. Jump! Dunk! I say jump! Dunk! Jump! I say bis bay ceeb. bis bay. I say bis bay ceeb. bis bis bay. bu ma jéem a diis bay seex kañ nga nangu li ñuy def fa diis bay seex jaamu dong la. naw sa kaw saison sèche ñu dee. clique sunu page son yu riche lay cher flow bi jox daat gars yi sik ay xeer wax ci ñun lu bon du ñu yàqal xeer ñu ne speed grand yow yaay Miss Jaay Cher gisuma seen prix mu tax seen clip yi génn ci seen prix est-ce que seen vie yi méngoon ak seen frip ñu ne ci seen bi di taasu ci seen frip yeah non vraiment c'est triste waay mère Dorna John Usher Ludacris Chris ah yeah this is good music not a hit but yeah I got my headphones bobby beats but non mais vraiment fils Yaay Cher non mais vraiment non mais vraiment fils Yaay Cher ma takk sama dàll ma takk sama casque nég bis nag ma bis bay jer yëpp bis bay jer déggu ma bis bay jer yëpp bis bay jer ma takk sama dal bis nag ma takk sama casque nég bis bay jer non mais vraiment fils yaay seer non mais vraiment non mais vraiment ma takk sama dal ma takk sama casque nég tu no se bis bay jer bis bay déggu ma bis bay jer ma takk sama dàll bi stack ma takk sama casque nigga stack ay hands up a hands up loxo ci kaw ma gis one more time yo hey hey hey hey hey hey hey yeah yeah yow maa gën a tipsé. sound bu ñu bari nee nañ baay bi dafa pisme. sound yu gën a. yow ay i e. say ah oh oh. xoolal maa fi ay bulo. po po po ay. bulo woon woon woon. Grand théâtre, est-ce que vous êtes là? go flow yeah bi mij lekker MC lekker boem op Big Mac Mijn paar reacties lijken fenomeno Flow bi tak moest verdragen liggen Na mijn rakken vak de moest zo liggen benen Ding maar tegen bureau tangen aan We terminalen die maar zit hoe die zet En iedereen de bom zag lopen Laat het diep kun je diep kun je Dank voor dat je mijn coach laat zien weet je Mijn eigen boeren geleden dat zien wit pie Mijn slim rap voor jullie flow whisky Voor de vreemde reactie en weer de whisky Zijn we handicap the cat, the guitar, the car. When I'm up with the van, the command the cat. Yeah, as it go flow, I take it as it go. You must have a yek. As it go flow, I take it my as it go. Some of us go. Never know the dog is who get F come on. It's only gonna give me yell yell. Jogging at you in the crazy summer. Bola hello Einstein, the captain. Una dore jak mi fazi la si dove dal. Omo dole man the flow in the dove dal. te dafa gaaw wax ko ji foofu seen taw wala ñu xamul ni yoonu tegi dafa bëri daa ngi laaj na la dafa faw sóoraat xamul sa aw génn foog sooy gaaw génn du ne it ba léegi maa ngi dóor waar job bi rafet nañu laari foog ñu ñaaw leen si doon rapportu marché ba yàlla ma yàlla bal sama ñaata waka ñaata sama samay tax na ma faj samay naqaar rek asiko sëgëm e eh, déggu ma yo sëtu hustler doomu hustler ama hustler jam la ne rustler ni ba masala da nga ne la kees meeg fiis maa ko def bu ma a diis bëri fiis digu ma dama ko yàgg def te xam nga sax ci bala jëm bëri ma ci sa télé ngir sa estime jaama jéem a suxal suñu nes bi dem na kaaw di fa sigil sama preskil kick lu fresh clean a jaama donga la xam nga wiita

assiko flow tegal ma assiko sama baat si kaw li ma sooba yëgal Lagos ak Rio